du may jóg ci di ko wax nan leen bàyyi xel di leen ñaanal ndax bi ma demee ci kër yaayu Aziz euh, Dabala dafa am kàddu yu ma dégg dama faadal sama doom nga suma xarit nga bu ma bàyyi ba Aziz dem rek ngeen bàyyi ma kàddu yooyu danaa ko sàmmanteeg moom di ci def sama kéemtalaay kàttan jàngu leen la jàngu leen tuuti ci xam nga sama sama dëkk lépp laa di faral dama lay ñaan bu ma Aziz dam nga bàyyi ma ndax yow dama laa sopp te booba lay sopp Aziz mi ngi dund dama laa soppi ngir social bi ngay def waxante ak man kàddu yoo xam ne muy kàddu gor maa ngi lay xamal ne yaay booy képp kuy dégg sama kaddu ku jege Aziz rek na xam ne wéyjuram woowu duñ ko bàyyi duñ ko seetaan dinañ ko fonk comme ni ñu fonkee suñu wéyjur ndax ku nu xam xam na ci yërmande ku nu xam xam na ci partagé ku nu xam xam na ci taxaw doomu adama ah ndax lii day jeex amaana après coow li après bu ñu demee quelque temps nit ñi fàtte ko waaye fas yéene nañu taxawu la comme ni mu doon taxawoo suñu wéyjoo bi ngir ba ñuy fasante yow kóllëre Aziz a ngi dund te booba Aziz taxul woon ngir cofeel goo am ci man di ma ñaanal ne ma faadal demale lay siibu keroog bi ngay daw di ñëw ci man yow yaayu Aziz tànki neen nga def dama sama doom ji moom ma ne yaa ngi ci mbedd bi ma daw ñëw ngir dama laa yàgg a ñaanal yàgg laa jooy yàgg a jooy ci TikTok bi Fadel foo ne seetaan naa la fa di ma wax ay vidéo yoo xam sax man tourné woon naa ko ci social bi te fàtte ko kon yaay yàlla na yàlla na laa dëgëral yàlla may la xolu yàlla sàmm la yàlla dëgëral la te xam ne Aziz suñu borom moo ne woon ak dundam fii lay yem ndax amaat yàlla du la bind ci fukki fan rey la ci juróomi fan yàlla moo ne woon Aziz bis bii lay judd bis bii lay génn àdduna yàlla moo ne woon Waly bis bii lay judd bis bii lay génn àdduna waaye itam bu nu focus rek ci Aziz nañuy bàyyi xel tam Waly xale bi dem xale la ndax ku ne 23 ans nga am daanaka duggagoo sax ci bunt àdduna amagul dara te ni ñu déggee ci yi mu ko ni kon kooku jirim la moom tam dañ koy ñaanal suñu borom yaatal la ndax amaana bu doon fan mën naa doon leneen ci réew mi kon nañuy bàyyi xel tam waali dëgg la tam Aziz da suñu borom def cër bi ak bayre bi ak coow li ba kenn ko di wax Aziz Aziz mais tam waali dem na ci anam bu métti dem na anam boo xam tam xam nga li gën a métti mooy gis sa dee li gën a métti mooy tey ngay souffrir ba dee loolu tam nañ koy bàyyi xel moom it dem na ci anam bu métti ñu ngi massaw ay mbokkam waali ñu ngi massaw ay mbokkam ngeen ko jaal di ñaan daal lépp lu mu doon sonn ci àdduna yàlla na fi yem waaye di ñaan yàlla leeral bi di ñaan yàlla leeral bi ndax yaakaar naa ne faatu sunu borom moo ko yelloo te moom mooy ki war a faat bu nit faate nag ak ku mu mën a doon nañ ko teg ay mesures yu sévères ba mu xam ni def na erreur tey di ma saw wayjur ñi nga xam tam jàpp leen ni ñoom seen doom moom lañ ñoom ñoo faat seen wayjur yi am nañu gàcce xat nañu am nañu jafe-jafe pour dund ndax amaat képp ku foo ne la sa doom moo faat nit ngay gor doo dund ngay gor doo lekk mu naan doo lekk mu jaal doo wanaasu ndax gor su ne gor la te ku sa yoon boo amee doom di nga ko dégg ci lu baax di nga ko dégg ci teraanga di ko dégg ci loo xam ne ëllëg du lu ñuy xeebee ndax doom nawle la waaye wayjur nawle la waaye nañuy dimbali suñu wayjur yi nañuy bàyyi xel suñu wayjur yi ndax amaat jamono toll na foo xam tey kenn ku ne da ngaa jaboot jaboot nag boo ko déggee mooy ku responsable koo xam ne jàpp na ne daa lu wekk sama ginnaaw tey ki def lii ak ku mën a doon rek lor na yaayam lor na papam lor na ay mbokkam teg na gàcce ay mbokkam yoo xam te mënatunoo siggi mënatunoo génn ngir ba àdduna tukki ñu fay bu ne moo faat Aziz Dabala ak waale ñu ne diw la loolu boo gàcce yàlla na ci yàlla musal lu luy def nanuy bàyyi xel suñu mbokk yi nanuy bàyyi xel suñu wéyjur yi ndax wéyjur nawle la te wéyjur indi la ci àdduna yar la mënoon laa rey reyu la nga màgg boo ko deful dara jàmmal ko ba bu ko teg gàcce ndax li gàcce gënu koo rëy ñu réew mi toll ñuy taf say fata naan yow yaa faat diw ah loolu yaakaar naa ne gàcce la te wéyjur wu ne suwetewul loolu nanu noppal suñu wéyjur yi nanu dimbali suñu wéyjur yi nanu jàppale suñu njaboot yi wéyjur boo ko joxul dara may ko jàmm mu mën a siggi dox génn ndax tey ak ku mën a def lii rek tey see wéyjur bu résultat yi wàccee ba ne diw moo def lii ba fi seen résultat yi ne lii la kooku yaayam dootul jar dara ci dëkk bi papaam dootul jar ci dëkk bi su fekkee mu am soxna nag soxnaam mën naa xaru bu fekkee mu am njabootam fan la njabootam jëm nanu xam ni àdduna yàggul te lu def na ko xam waaye wéy leen di ñaanal Aziz wéy leen di ñaanal waali ndax man dugguma ci détail ñaan dong laa soxla. waaw nan nga ko gisee woon ba xam état physique bi mi ngi fa woon ba xam tamit état moral bi mi nga xamante ni sekku nga ko ak ki nga xam ne mooy yaay Aziz la waaw yaay ji ni ma doon wax moom état physique bi ma di ci moom mooy état bu ku ñàkk ku ñàkk alalam doom dafa saxe ci xol doom dafa dagge ci xol ndax euh, amaat doom ak wéjur benn cordon moo leen liyee bu xale bi génne bu xale bi juddoo ba gane àdduna dafa am benn cordon boo xam ne ci la ci la ci la yaay ji di lekk xale bi di ci lekk cordon boobu moom la ñuy tàqale mooy jumbax bi fekk dagguñu ko rek xale da koy dagg nag yaa ji xale bi dem yaa ji dem kon loolu dafa nekk lu rëy ndax cordon moo leen boolee boo dégg naan dagg nañ jumbax bi kon loolu bu fekkee am nga kooku di ko yar nampal ko di ko jàppale muy jooy di la muy jooy puus nga jóg di sang mu feebar doo nelaw mu xiif doo nelaw ba tey kooku màgg tey ba commencé à jël wërsëgam di la jëriñ kooku bu génnee àdduna ci anam bii di nga ko yëg yaay ji ma gis mooy yaay ju am lu ko naqari mais yaay ju gëm yàlla yaa joo xam ne lii dal doomam mënu ci dara waaye yaa joo xam ne tey am na lu ko naqari ndax amaat ndegam ñu jurul Aziz la lii métti waxumaa ko jur Aziz ndegam ñi ko jurul la lii naqari waxumaa ko ko jur kon moo tax ma ne gis naa yaa joo xam ne yaa ju gëm waaye yaa ju am lu ko naqari li tax mu ne ma nag bul ma bàyyi ñaar da ci am ki ma sopp te la tax sopp ma ngir Aziz dafa ne ma dama laa sopp ngir sociale bi ngay def ma lay siitaan à travers Dakar ba TikTok bi yow laay siiba moo waral ma daw génn ak tànk ne ma ne ko yaay waaw de ay su ma waxoon ni yow yaay ñëw kon doo ñëw man maa lay fekk si ngir sama yaay nga mu ne ma déedéet damay bañ nga nga nga dem te bu gisuma la maa ngi doon ñaan yàlla yàlla indil ma la comme yàlla indil na ma ba sa buntu kër man maay daw ñëw kon loolu muy kàddu yoo xam ne man marqué na ma te du yàgg dara bu nu suñu borom may dund may nu fekkee di ngeen xam ni bawunu yaayam ñun nag defuñu ngistal defuñu ngir nit ñi xam nu defuñu ngir dañuy def ngir yàlla te bari na ci ñoo xam ne nag jëflante nañu ñoom ci côté boobu sàmm kóllëre gi ma ciy waxaat message boo xam ne Aziz dem na. Malick Waly dem na. mais nañ fexe ba jàpp ñi nga xam tam ñoom ñoo ci ñoom la nekk képp kuy xarit Aziz na ko topp yaayam képp ki jegeñaal Aziz na nga bàyyi xel yaayam. ndax bari nañ Aziz doon liggéeyal à travers ci euh, internet bi moo xam ni mooy artistes yi nañ di jàppale yaayam ndax Aziz kenn mbaar la woon kenn mbaar soo ko déggee mooy kenn ci kër goo xam ne da daan jàppale ay waajuram te ku dem fa Aziz dëkk ak fa yaayu Aziz dëkk di nga xam li ma la kon bu Aziz dem da dëdd ñu bàyyi léeg-léeg nit ñi génn àdduna proposition yu bari dinaa engagé wu nangam ñu dawal un dawal six mois kenn ku nekk sedd ma ngeen xam ni colère lu mat a sàmm la te kenn ku nekk asi jëflante naa yow sàmmante naa colère goo xam ne lii tax fa mu tëdd mu taale mooy nga sàmmante diggante ak waajuram wi fi dese daan ko jàppale daan ko dimbale ba lépp lu waajuram bëgg soo mënta def lépp nga taxaw ko ba waajuram mën a yëg ne asi sori na ko ci saayir waaye ci baatit mi ngi ak am solo laay ko bàyyi xel surtout artistes yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey ak artistes dëj bi nga ñëw jaale c'est bien bon indi sa jaar am na solo waaye noonu bàyyi xel après dëj bi ndax événement bi lu mu rëy rëy day jàll am na yu mel ni yu fi jàlloon toujours ma koy wax toujours dañ ko xool ci kaw Jules si Junior bi mu génnee àdduna engagement yi bëri woon na proposition yi woon na le fait que mu dem un an nekkaat ci ay problème kon loolu laay bañ ndax actuellement kenn ku ne jël nga kaa bi def ko sa akaar jël nga asi def ko sa doom kon nañ continuer di ko di ko defal loolu ma ci lancé un appel tam ci bonne volonté yi ndax man bonne volonté yi laa am waxuma waykat waxuma waxuma waxuma feckat ñoom ñëpp seen bien boobu bu ñëwee baax na bu ñëwul tam baax rek mais bonne volonté yi nga xam ñu ngi may suivre à travers Dakar Buzz ah, képp ku bëgg a dimbali yaayu Aziz woote 78 611 11 loolu dinañ fexe ba mën a seet yaayu Aziz jàppale ko ndax kenn ko xam ne yaayu Aziz dund war na ko añ war na ko reer war na ko fay courant fay ndox kon nañ ko bàyyi xel te def rek te yàlla tax am kon Omar euh, Abou Saloum dana am na ku mu bëgg a dugal ku nekk ci ligne bi ñu taataan kooku lan lay wax ak yan kàddu la wax ndax Abou Saloum xam moom jinne la moom fi muy génn moom moom dama ko ragal ma Abou Saloum waaye wéy leen di ñaanal Aziz ak Waale ndax ñoom ñaar bokk yëf yi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. papa Amadou Mbaye juriste pénaliste ñu ngi lay jaar bu baax a baax. Euh, naka nga gisee xew-xew bi nga xamante ni moom moo am euh, bi ñuy bëgg a màggal ak léegi ba léegi euh, police nekk ci def liggéey bu ama am solo ba ñu teg ci juróom ñaari nit loxo ñoom ci ñi nga xamante ni ñoom lañ teg loxo jàpp nañ ñoom ñoo def li nga xamante ni moo di jëla jëye mm-hmm. Mm-hmm. donc daawaat population bi. parce que liggéey en république xam nga Sénégal genre société criminelle. day créé benn cause. dëgg la parce que loolu ay société criminelle. donc société yoo xam ne dafay ji. expansion des pratiques. des préoccupations mais Sénégal bokk na dëkk yi nga xamante ne xamuñu ce genre de scénario c'est pas une société criminelle. moo tax bu dee amee rek day créé suñu naan bu dee la population di di di di ci wax. créé benn cause. mais nag li nga xamante ne moom la ñu dal yi mu mel ni fi ñu nekk Fadel réseau bi dafa xaw a. waaw mais mi ngi ci mhm. biir bi. Mhm. Mhm. Euh, ñoom Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Euh, mais mais Pape Amadou euh, ci ci ban anam la ñuy wax nit ki am na retour de parquet parce que ñu ci bari démb euh, ci taskatu xibaar yi ñi ngi doon wax ni nabu ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp ni ñoo rey rey gi am nañu retour de parquet est-ce que li ñu am démb retour de parquet la parce que dañu waroon a jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di procureur. Mhm. Mhm.

ah li mu doon wax dafa dafa dafa réseau bi moo dul neex. dafa am solo léegi comme yow nga te am nga ci loo jot mhm. euh, moom li ci li mu ci li mu jot a wax euh, nee na euh, li nga xamante ni moom la gis en tant que juriste pénaliste musta gis lu mel ni fii ci suñu réew Sénégal te jiyee ju mel ni dafa indi day indi loo xamante ni lu bare bare la ci biir réew mi moom nag ci li mu doon mujjee wax dégg ko parce que réseau bi moo moo xamante ne xam naa ci kanam moom la. tudd en même temps ay euh, juriste pénaliste la loolu Fadel dañ koy jëlaat parce que li muy wax nii lu am solo la moom xëy na moom mu ci gën am ay leeral euh, ci wàllu retour de parquet bi nga xamante ni am am euh, ñu ngi koy wax loolu dinañ ci indi ay leeral ne su ci kanam Fadel dinañ ko jalaat pour ñu gën a taataan ay xibaaram ak ay kàddoom parce que moom ci domaine bi muy yëngu ku ci xarañ la macha allah. d' accord muy kaddu yoo xam ne Abou Saliou jëlee na ko ci juriste ki nga xam ne mooy juriste kan. Euh, Papa Amadou Mbaye. Papa Amadou Mbaye ngeen dégg kaddu yooyu. nga xam ni am na ci indi indi na ci ay leer ak amaat ah dama nekkoon ci point bu am solo dama nekkoon ci point boo xam ne yaakaar naa ne dafa jar a bàyyi. muy côté wéjuram. ay waay dina mel ni fi ni conférence de presse tamat ni ndekkee gu ma micro yi léegi nag noonu xam ni dama nekkoon ci lu am solo loo xam ne laal la. Ah, ah, ah, suma jigéen maa ngi ñaan yàlla defal la jàmm taxaw la waaye laal dama bëgg nga ñëw ni sama ginnaaw ñu pelloo ci que soxla naa ci say kaddu parce que yow da koo xam ne mbuusum gone bul sol yàpp manga yow da ngay gone koo xam ne mbuusum sol gone bul sol yàpp manga maa ngi yow yàlla léegi laal la dama ne ko ci benn point boo xam ne dafa am solo mooy que ni dañu focus ci ki def lii war nañ ko xam war nañ ko xam war nañ ko xam mais base liggéey bi yëpp man li ma jàpp mooy ñaanal ñi dem suñu boroom yi jéggalante yàlla yaatal seen bàmmeel. waaw xam nga Fadel maa ngi lay nuyu di nuyu eh, fidèle internet yi nga xam ne depuis dem ba tey ñu ñuy topp en direct donc wax nga lu essentiel mooy eh, ñi nga xam ne jot nañu ñàkk seen bakkan bakkan dafa fort te doomu aadama yàlla lu mu sàkk doomu aadama la ci gën a bëgg donc ñoom ñii dee xëy na dee gi na leen aussi ku leen woon ba xaaju guddi na leen ci anam yi ngeen di demee ko gëm donc mu nekk lu maintenant particularité bi ci nekk mooy euh, gis naa ñenn ci sénégalais sax dañuy wax naan lu ne jaar na fi lu ne jaar na fi peut-être que si anam yi mu amee moom moo waral tey mbir mi jël tournure parce que peut-être yàgg nañu assassiné ay nit yàgg nañu faat ay nit jëkkër ak jabar sax rayante na mais euh, circonstance yi moom moo tax mbir mi toll fii maintenant comme ni nga ko waxee souvent sénégalais aussi dañuy prononcé wu sur des mots yoo euh, ci bëri maîtrise waaye par exemple tey fi ñu toll ci enquête bi kenn xamagul kan moo rey ñoom ñëpp ay présumé meurtrier lañ ñoom ñëpp ay suspect lañ ñoom ñëpp ay complice lañ loolu lañ jàpp parce que moo yooyu lañu mën a utiliser pour le moment maintenant ki rey ak ki reyul ki bokk ak ki bokkul loolu procureur a koy décider parce que si fois que tey ñu entendre leen auditionné leen procureur bi ne ah nabu Leye mi mandat nañ ko déppoo c'est parce que am na luñ jàpp ne laale na ci moo tax ñu mandat de dépôt en tant que ñu ñuy édifier li xam ne moom moo war a maintenant ki taxaw ne moom moo rey nit mun nga avouer ni yaa rey fekk reyoo parce que su mbir amee ku ci nekk bu fekkee dafa am ku nekk sa ginnaaw da ngay essayer di ko protéger loolu yëpp c'est des thèses yoo xamante nit ñi il ñu bàyyi ci xel maintenant ñun ñëpp mun ñu nekk ay enquêteurs ñun ñëpp mun ñu nekk élément bip dip du moins ñun ñëpp mun ñu nekk ci euh, procureur il faut ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam parce que souvent yii su amee da ngay gis su nekk di joxe version bu nekk yaakaar naa lii nga xamante nit ñi tey moom la ñu war a jàpp mooy enquête finale bi su jeexee ñu ne ah affaire double meurtre Aziz Dabala lii la euh, réquisitoire procureur bi joxe tribunal bi lii lañ ci décidé soit dañ leen di mandat de dépôt wala soit diw mi dañ koy libéré parce que jàpp nañu laalewu ci taxewu ci maintenant ci biir enquête bi am na élément yoo xam ne dafay génn par exemple euh, journaliste yi wala site yi dañ koy am c'est dans l'ordre normal des choses parce que tey ñun bu ñu demee tribunal di assister procès dañuy dugg ci bi dañuy toog assister li nga xam ne moom moo xew bu ñu paree defar PV yi génnee mais am na ci PV yoo xam ne boo ko liiree da ngay xam ne li li ñu wax ci enquête bi ak li kii di wax bokkul donc au final nit ñi dañoo dem ba dañoo réer kenn comprendre wul kii et kii kii fait quoi moo tax dafay baax euh, nañu sukkandiku ci li nga xam ne moom la élément enquête yu di euh, dib yi euh, nu mu division des investigations criminelles génnee rap li mu génnee ci révélé ci enquête bi pour le moment dañ ciy sukkandikoogum comme information maintenant diw coupable la wala dañ ko incriminé tollooguñ ci phase bu xama ci ban phase lañ toll ñoom dañu nekk di collecté képp koo xam ne jàpp nañ ne mbir mi laale nga ci léegi nag en attendant ñuy xool kan mooy le véritable coupable wala ñan ñooy les véritables coupables merci beaucoup parce que moo yooyu c'est des mots yoo xam ne nit yi dañ ci attardé wu di ko utiliser te te pour wax ne diw moo rey wala diw ci la bokk kenn warul wax sax kii diw nangam dañu ne ñoom ñëpp ay suspect lañ Donc suspendre, cela ne veut pas dire que tu es coupable. Présumer aussi, cela ne veut pas dire que tu es Donc loolu yëpp dañ ci war a bàyyi xel de telle sorte que ñu bañ di anticiper ci li nga xam ne moom mooy mbir yooyu donc loolu laa bëggoon euh, apporter comme ay précision euh, par rapport ak li nga xamante ne moom mooy euh, journée tay bi démb ñëw nañ fi gis nga li xew ndabu lay auditionné nañ ko ak yeneen ñi nga xam ne jotoon nañ leen a convoqué fii déglu nañ leen ñu amaat retour de parquet te souvent dañuy wax retour de parquet moo gën a metti sax dem mandat de dépôt parce que retour de parquet euh, euh, condition yi ñu lay teg di nga gis ku avoué sax te fekk deful parce que tellement euh, loolu lañ ci jublu en fait moo tax ngay dégg ku naan man dama yàkkamtu en emprisonné ma sax que <laughs> ma amaat retour de parquet donc mun nañu wax ne ñoom ñi am retour de parquet instant bi ñoo gën a sonn te ñoom boo leen xoo boo xoolee instant bi bu dee doon tey Euh, euh, bëgguñu si ñu tuumaal leen ci tax bu démb doon tey même dara lu liyee ak ñoom du leen du leen boole. parce que li ñuy dund instant bi pour non seulement sénégalais li ñuy dund métti na mais ñoom aussi seen der setu ci. parce que tey le fait que ñu convoqué ci kenn kuñ ci convoqué yaa ray rayoo nit ñi lijjanti wuñ loolu dañuy jàpp ni mbir mi bokk nga si boole nañ la si maintenant nañu bàyyi justice mu def liggéeyam. mu édifier ñu ñu xam kii et kii kan moo rey kan moo reyu ñoom li ñu li leen war ci seen liggéey ñu def ko maintenant nit ñi ñu ngi wax la loi portant sur la pen de mort tey Sénégal dafa benn réalité bu fi tey tey loi boobu suñ demoon ba di ko def assemblée lay jaar parce que lépp loo xamante ni bëgg nañ koo insérer ci loi yi foofu ñu voté maintenant su si toutefois que tey Sénégal yëpp d'accord nañ ci loolu ñu lancé pétition wala kat état bi dem ba conscient que ne niveau d'insécurité bi bari na parce que di ci écart une semaine on a eu beaucoup de morts pas plus tard qu'hier relevé nañ trois morts benn bi Grand Yoff benn bi Bargny benn bi Yëmbal xoolal li xew Yëmbal jarbaat ak nijaay moo tax en fait te soo xoolee ni muy demee c'est des liens de parenté yu sacré maintenant problème bi mooy il faut ñu xool population bi dañoo feebar la société est malade léegi nag malaadi societé bi nañ dem ñu jéem ko diagnostiquer parce que yenn comportement yi nit yi di am dafay résumer li nga xam ne moom la société bi di dund tey y'a l'effet de la drogue euh, drogue bi mi ngi fi chanvre indien bi mi ngi fi leneen ak leneen mi ngi fi tey ñii di rey ñëpp xaaj bi kenn li si du ci mais suñu demee ba toll foo xam ne des enfants de 20 ans 17 ans 18 ans ñoom ñëpp dañuy nekk di utiliser ay drogue di voler ba duñ tàggoog seen sago jam la ak naan bi moom lañ yemale mais y'a problème. jam ko ak naan ñeel jam ko ak naan ndox jam la jam ko ak naan ndox. non dama kaa waxee noonu rek donc donc nekk ay ay ay problématique yoo xamante ne nii il va falloir ñu poser débat boobu moom la ñu war a poser actuellement nii. parce que la coup est déjà parti et tamit naka la ñuy dundee ba li dal par exemple tey benn Aziz Dabala ak Waly mu bañ a dalaat keneen cest à ci foofu lañ toll il faut Sénégal ñu bàyyi détail su problème amee ku nekk bëgg a génn bëgg wax nañ dem dans les solutions. indoo dans les commentaires man loolu amoon comme contribution bu may def. leneen li ma ciy waxaat mooy que ni leneen li ma ciy waxaat mooy que ni euh, kenn ku ne xam ne tam bu yi mel ni amee euh, un célébrité ku nit ñi xam mu génn àdduna engagement yi dina bari mais man mi dem kër Aziz xam naa ne Aziz mooy kenu mbaar kenu mbaar sa moom mooy moo moo moo moo yoroon yaayam Aziz soutien de famille la boo xam ne moo doon jàppale yaayam ma bëgg rek ñi nga xam ne Aziz doon na liggéey ak ñoom. à travers ci li nga xam ne moom mooy ci li mu doon yëngu ñu baña a bàyyi ñu bañ a négliger yaayam ñu bàyyi ko xel ndax képp ku bëgg assiste te bëgg fa mu tëdd mu taale di nga bàyyi xel yaayam ndax yaay dafa daggee ci euh, doom dafa daggee ci xoolu yaay te assiste li mu doon sonn daanaka yaayam a tax pour nu gën a bàyyi xel yaayam ni assiste dem na mais buñ fàtte yaayam aussi waaw loolu li nga wax c'est important parce que comme ni nga ko waxee tey gis nañu keroog bi ñu demee fële nga xamante ne moom mooy palais de justice euh, tribunal bu Dakar euh, di assister ki nga xam ne moom